salaat lazi fi kulli saarin wa fi safar xamaani maahin maal absa safar falaahi bi kawni abda xadimahu ajibun bihi amis téléspectateurs de la RTT TV comme euh, vous tey ñëw nañ foo xamante ne mooy euh, fii ci Thiès démb ñoom ñoo ngi woon mais tey euh, ñoo ngi Thiès <clears throat> di euh, ci wàccaayu loo xamante ne mooy wàccaayu safar bi euh, koo koo xamante ne mooy Soxna fay moom mu organisé ko le onze incha allah fale ca Kaathié Somme tey nag dañoo fekk si koo xamante ne moom mooy maman moom la marinel mais maman Khady nijaayam la dénk ay kàddoom dañuy jël suñu micro rek te taataan ko ci nijaay mu wax ñu tuuti ci koo xamante ne mooy maman Khady ak koo xamante ne moom moo organiser loo xamante mooy safar bi le dix euh, le onze incha allah fële ca quartier Somme euh, dañuy bàyyi rek nga présenter après nga wax ñu tuuti ci koo xamante mooy Mama Khady. waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ah di rafetlu teewaay bi nga xamante ni def ngeen ko fii ak euh, choix bi nga xamante ni porté ngeen ko ci Mama Khady. pour jox ko cër bi ngeen ko jox muy marraine ko safar gi man nag euh, Ardo Tall laa tudd di nijaayam bokk ak euh, yaayam nday ak baay di wax ni daal euh, kontaan nañ trop ci recevoir leen fii ak aussi recevoir nu mu tudd lettre de marrainage bi nga xamante ni moom ngeen ko décerné. Mhm. gis nañ ne maman Khady at yi néew na lool mu doon xale. Euh, ki nga xamante ne mooy Soxna fay xeebu ko benn yoon mu gis ko bëggal ko boppam ba mu boole ko ci loo xamante ne mooy euh, marraine bés boobu noonu muy 18 safar <clears throat> mu nekk ci euh, yoonu boo xamante ne yoon bu baax la yoon bu macha allah ñi ciy bëgg a bokk bëri nañ lool mu yoonu Sëñ Tuubaa loolu noonu en tant que nijaay yow lan la def ci yow. waaw actuellement nii man damay ressentir sentiment de fierté te cër la te cër yàlla moo koy def ci doomu aadama. ndax mag dina am cër xale dina am cër mais kenn du soxna ndax euh, bu xooloon ci atam wala xool ni mu tollu wala bu fekkoonte ni am-am ak koom-koom mooy tax muy def du fekk xale bu toll nii di ko ko di di ko def marraine mais nag euh, dina xam ni kii am nay mbokk ndax buñ ci àggeeg jaam incha allah on va se mobiliser noo tous dem jàppale ko dem dooleel ko parce que moom suñu jarbaat la mais xale bu baax la xale bu am yar la xale bu am teggin la donc dëgg la xale la mais cër bi man duma bett ci moom ndax yaram tegginam du siggi xool nit li muy doon doon xale dafa am kersa te loolu dafa baax ci doomu aadama nit da nga am kersa da nga am yar donc bu fekkente ni cër bu mel ni tàbb na ci kawam duñ ci am lu dul fierté duñ ci am lu dul mbégte. Hmm. macha allah mooy noonu euh, parce que dañ naan xale euh, loxom bu setee rek mën na bokk ay mag euh, ci ndab mu doon loo xamante ne dañ naan nit ki baax na baax na ay mbokkam buñ ko waxul daa mel ni loolu noonu amul sens. Euh, te ñu gis ne maman Khady mu doon euh, xale boo xamante ne euh, comme ni ma ko waxee sànq at yi néew na lool ñu jël ko soxna jël ko tabal ko marraine ci yoon boo xamante ne mooy yoon murit te gis nañ ne ay jamono jii nii nii xale yu bëri ñoom jël nañ beneen yoon boo xamante ne bokk na wute na ak yoon boo xamante ne yoon boobu la soxna woo maman Khady boobu yoon lan yan kàddu ngay dénk koo xamante ne mooy maman ak yan kàddu ngay dénk koo xamante ne mooy soxna mi def jëf jooju. waaw sant yàlla rek parce que lépp dañ koy delloo ci sunu borom ndax mama moom déjà murit la man mii de wax ak yow taalibe Cheikh la taalibe sëriñ Babacar la dégg wax bi donc moom bu jëlee loolu taabal ko ci kër indi ko ci famille boo xamante ni tey ñii ay taalibe murit lañ ñii ay taalibe Cheikh lañ sentiment fierté ak mbégte rek lañ ci am soxna lii mu def nii mënuñu ko ko fay luñ ko mën a jox ci àdduna fay ko waaw luñ ko mën a jox rek fay ko parce que yëg-yëg moo am solo li nga xamante nii mooy tukkee ci biir xol moo am solo parce que dañu faral di wax naan li ci xol yi bu dee dëgg la je pense que lii ne ci làmmiñ ñu doo am solo donc cër bi moo ëpp doole lépp looy gis ak yéene ki donc yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm ñuy ñaan aussi yàlla defal ko ci réussite à cent pour cent yàlla def mu dem ba gis ay sëtam di ko organiser parce que damay faral di dégg di wax ñuy wax naan yoonu Serigne Touba amul tànku gannaaw tànku kanam rek la am. pour ma euh, déggal euh, sa wax jooju noonu boo xoolee ren mooy septième édition bu may def. macha allah gis nga septième édition yàlla na dem ba doon cent septième édition yàlla mën na ko moom mu fekkee ñëpp fekkee te at mu jot rek dàq bi weesu. ndax mbir la moo xamante ne nii dafa jëm ci diine te du yàlla dogale ñun ay ñun ñuy ay jullit amul murit amul tiijaan amul laayan donc lu nit di woote lu jëm ci wàllu diine ji je pense que dañu ko war a dooleel donc maa ngi ñaanal soxna yàlla may ko mu àggaleeg sago ñu dem ci bés bi jàmm yàlla may ko ci réussite à cent pour cent ba lépp lu ci ay attentam yàlla defal ko ko ci barke naa Mohamed. amin incha allah euh, dañ lay bàyyi rek nga daal di euh, tàggatoo après ñu jël euh, lettre bi jox ko koo xamante ne moom moo waral lii tey. waaw li may tàggatoo rek mooy di di di gën a wax ni dañu kontaan di ziar sama famille xam naa du ñàkk dinañ seetaan li di ziar wàllu kër pappam ndax fii wàllu kër yaayam la moom Mama Khady di ziar wàllu kër pappam di leen sant di leen gërëm ci téye gi ñu ko téye et di gën a remercier soxna di wax ni daal euh, comme ni mu ko defee nii chaque année bëgg naa ko yëg ba nga xamante nii dinañ ci mën a fesal suñu yéene ndax soxna nit ku baax la man bi ma koy xam yàgg na xam naa ko lu yàgg te ci dal ci teey ci yar ci civiliser laa ko mës a xam macha allah maa ngi koy ñaan daal chaque année bu jotee bu ñun nañ koy yëg pour bu ko defee ñu mën cee motal suñu yéen incha allah moo xam day ne marrainé Mama Khady moo xam da koy ñàkk a parce que même bu ko marrainé wul woon man bu ma ko yëgoon dinaa ci dinaa def la tuuba teew ci ndax kóllëre gi am sama digganteeg soxna ndax yàgg na trop boobu mu ngi jàng vraiment mu mës doon nit ku dal mu mës doon nit ku teey mu mës doon nit ku baax man yàlla xam na ni fàtte woon naa ko moom ndax dañ a gis. benn bis la ñu gisee rek vraiment mu rafraîchir sama mémoire ma fàttaliku bi ma koy xam vraiment mu doon nit ku baax donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla def jàmm daal. je mhm. merci beaucoup am na euh, soxna da ngay euh, jege si rek joxe loo xamante mooy euh, lettre bi maman Khady atia bisimilah yegg si <laughs> mu ngi noonu lettre parrainage baa ngi noonu pré wàccaayu loo xam mooy dix huit dix huit safar mooy septième édition organisée par Soxna fay waaw maman Khady moom moom lañ ko marénal tey nag mais xam na euh, kàddu yi du si ñàkk nag nga yow nga sànni si ñaari moo rek bu fekkee mën na nekk <laughs> ñaari moom ku baax la ku baax na ku am yar ku am ku am teggin la ba ma koy doogee xam xaw ma ko moom moo damaa dem ca Bougainville mu daal doon sama xarit doon sama lépp mu mel mu jàppee ma yaay ma jàppee ko tànt acca merci beaucoup moom mooy noonu dégg ngeen kàddu yi euh, vraiment mbaax rek am solo kon soxna fi nga ko jàpp foofu la euh, maman Khady fi nga ko jàpp foofu la parce que yàlla du def euh, loo ne mooy hasard parce que hasard amul. waaw di leen ñaanal nag xam seen ànd bi yàlla gën cee teg loxo yàlla gën leen dooleel ba xam li ngeen ci séntu yàlla may leen li kawe seen njort incha allah rabbi acca mooy noonu xam naa. Mame Boye yooyu tamit foog nga am ci loo loo ci sànni de parce que du mënta ñàkk de merci beaucoup. di leen ziar leen jox seen wàccuwaay tey nag dama kontaan mais mënumaa wax heureusement bi mu fi fekkee tonton bi sax mais soxna mi bi ma ko xamee yàggul ci boulangerie bi laa ko xamee man bu ñëw bu jaay siwul daf may manqué bu jaay siwul moom daf may manqué bañ naa ko ba dama ko wax. ma ndax mënuma tricher ku baax la ku yaru la ku yaatu la ku mun a joxe ñam la bu xëyee segg kafe borom charrette buy romb sax bu duggee mu jël café jox ko mu naan matin et nag bu fekkee ne moo gont dina segg café bu fekkee ne moo xëy dina segg café ñëpp ay naan café munoon na ko ceeb kañ a fekk xale bu baax la ma di ko ñaanal lii yàlla na ko fete ay atti atti at di safar ay atti atti at digganteem ak maman Khady mii yàlla na toog ba maman di ko wuy ji jouru mariage am ci darajey Rasulullah yàlla na ñu yàlla may tal ak fekke ci darajey Rasulullah kontaan naa kontaan naa trop soxna kontaan naa trop trop dama baaxewul ay wax nag boo tax mais kontaan naa daal macha allah ma ne ko chapeau daal ma ne ko soxna daal chapeau. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما سبق الناصر الحمد لله والهادي لنا من المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه ajibun bihi